jërëjëf mbokk yi ñu seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaan ak mbégte euh, comme liñ la koy defalee saa su ñu ngi fii ci arène nationale. bu ñu nee 14 août sa xel day dem ci bis bu rëy boo xamante ne jam production moo ko organisé grand combat bi dox ci diggante Fils de Balla ak Goro Sock mu nekkoon combat boo xamante ne jàppoon nañu ko le 20 mars yàlla suñu borom dogal. kii di goro Sock am blessure blessure am boobu nag njort nañ ñu dugal na lii di guérison ba ñu jàpp ni combat bi la 14 jours incha allahu rabbi dinañ ci bëri. Jamaïcain jël ñaari xale yoo xamante ni kii dëkk pikin kii dëkk Parcelles mu déclare diggante jàmbaar ak Pikine ba tey kii di Jum de ak xale bii di fils de euh, waay waay booy booy zil mu mu boole leen ñoom ñaar ñu fas yéene laale. nekk combat boo xamante ni yaakaar naa ni ñoom ñaar ku ci nekk xale la te yaa ngi ci sa yoon kii gis naa ko keroog dimaas bee weesu fële ci stade Iba Mar mu ñëw ci lutte traditionnelle bi gën a wane boppam ci wàllu bëre. jum mi kenn du ko présenté moom it ci xarañte ci wàllu bëre ñoom ñaar nag maa xamul damay njëkkee ci booy ju ma njëkkee ci moom. waaw tax nga moom. moo dalal quoi. waaw. loolu de cër la da koy jël. waaw dama koy jël xam nga ni moom mu la joxee cër da nga koy jël. bisimilah jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba damay nuyu ñëpp di nuyu sama supporter fépp supporter boo Jules nekk rek maa ngi lay déggee. di nuyu waa Pikine bu baax a baax a baax di sant suma yaay bu baax di sant suma yaay di sant suma yaay di sant suma esaaf ñoom aada ñoom jiili Diouf xam nga ñëpp maa ngi sant saal ñëpp xam ne ñoo nekk sama ginnaaw rek. maa ngi leen sant di ko wax dalal jàmm jum de. lan moo tax ma waaw mais mbër la rek a ah. te làmb moo ñu boole moo tax ma jël ko. dañ la ko proposé wala waaw dañ ma ko proposé nag vraiment laaju ma ko yàlla xam na ko. waaw dañ ma ko proposé moo tax ma jël ko. te xam naa proposé staff la ñu wax. waaw sama staff dañoo waxtaan jubo après ñu d'accord ne làmb la ñu jël ko waaw. combat bi ñaata lañ ko taxawal. ci ci négociation bi ci ñaata moom ne woon naa leen combat du yàgg ci du yàqoo ci man vraiment yaakaar naa deux jours la xaw ma trois jours yàgg nañ ko wax nag yàgg nañ ko wax mais boobu confirmé wul woon mais bii moom bi ko jëm doxee j'espère que ne ah. uh-huh. xam nga adversaire bi Dioum. Dioum waaw yàgg naa seera ay combat am ah. waaw seera naa combat nga seera naa combat am moo Félix bi boobu maa ngi gën a nekk booy. waaw boobu seetaan naa ko vraiment mu daal ma ne kii jëli bi rëy na affaire yooyu noonu. waaw non yàlla wóoru ma nag parce que mën na ma njëkk a dugg ci làmb tamit waaw mais daal en tout cas làmb la daal. combat wala amul combat. waaw non ñun ñaar ñëpp am combat parce que mbër yaakaar naa day ñëw pour rayante si damay ñëw pour rayante si ñun ñaar ñëpp am combat en tout cas daal lu ma mën a wax mooy du yomb. moom waaw te incha allah bu jëflantee man ak moom ba pare. waa parcelle balaa ñoo dugg fii dañuy tàggu. loolu de laa bëgg a dégg. waaw Baye Djily bañ sant yàlla dañuy julli ci yenente bi di sant sunu ñaari waajur di sant suma sëriñ sëriñ Abdou Karim borom makaarimal axlaa di ñaanal ñu tëdd ci lalu hôpital yi feebar yàlla fëgg seen bopp ak ñi nga xam tëdd nañ seen kër yi amuñu lu ñu fajoo yal yàlla fëgg seen bopp di ñaanal way daw de leen yàlla xaare àjjana di ñaan daal réew mi yàlla defi jàmm di la nuyu di nuy suma adversaire Boy Zil di sant ñu ma àndal tamit ku ci mel ni suma président fan si club Seynou Mboub général King Pape waaw di nuyu waa parcelle nag ba vingt six parce que ñun amuñu lu dul parcelle. loolu dinañ ci ñëw mais jum dafa am lu Boy Zil wax léegi combat bi sa digganteeg flic seetaan na ko te moom jàpp na ni boo duggee boo duggee ci moom parcelle moom dootoo leen jël avance waa Pikine. waaw loolu moom am na ci droit moom. mais Pikine parcelle moom derby la quoi mais dañuy ñaan rek ndox du bàyyi yoonam xam nga parcelle moom daa musa yab waa Pikine fu mu leen fekk na leen kaa leen toogee nii xam nga dañuy ñaan yàlla rek mu continuer noonu. loolu rek laa xam lu may wax. Pikine parcelle tamit xam nañ Pikine de. waaw fan lañ ko xamee. ah bëri nañ fa ay mbër ñu daal leen comme ni pikin dugge parcelle am fa ay ndam parcelle tamit dugg na Pikine am fa ay defet waaw mais loolu la rek sport la rek. tey da ngay ñëw mu nekk sa bis tey doo ñëw mu nekk sa bis mais avant tout maa ngi koy sant moom parce que man bokk naa ci espoir yi gën a naqaree wutal adversaire ci làmba barki Seydina Mohamed mais moom dama koy sant comme que moom nangu na ma jël bàyyi jëli man fi ma nekk du sama place ci làmb xeebu ma ko nag champion la seetaan naa ay combat am. ay combat am ma ko lim wax dëgg yàlla damay wax rek ku dee ak sa bàmmeel seetaan naa ay combat mu doon daa naan nag day bëre quoi tama damaa bëgg kuy ñëw di bëre si maak moom Jamaïcain lim tëgg sa xamu ko Jamaïcain combat bi mu tëgg nii sa xamu ko waaw parce que dinañ xeex dinañ bëre bëre dóor lañ wax bëre dóor lañ wax dañuy xeex dañuy bëree. boo njëkkee ci moom. est ne li mu wax moom confirmé ne ko. nee na yow bi ngay bëre Félix moom ma nga fa woon. tax xam nga ni diggante ma Félix ni mu mel. yow nga jékki-jékki fi mu toll nii actuellement nga jël avance am. avance bi nga jël danga ko yaakaar ni nooy neex la wala da nga bëgg a dekkil diggante Modou Lo ak Ama Balde wala lan moo tax nga dugg ci avance. waa xam nga ku ne tey jii nii boo nee adversaire bu dëkk parcelle rek ne ku dëkk Pikine rek dañ naan Modou Lo Ama Balde xam nga fi may waxee. wala parce que instant bi làmb ji moo moo toll foofu noonu instant bi lamb ji Pikine la ak parcelle lamb yëpp. tey combat bu taxaw nga war a am adversaire Pikine moo xam nga nekk xam soo cosaan moo xam nga nekk Falaye Balde ak foo munti nekk ak ñi nekk parcelle tamit foo munti nekk dañ naan derby la. loolu day am ci ay saison yoo xamante ni day day tombé noonu la dem bu njëkkoon pikin Fass nga doon dégg mais léegi lamb ji moo tuxu. parce que da ngeen a da a nooyal trop hmm. moom. ay Baye Fall lañ xam nga ñun ay taalibe Serigne Cheikh Fall Mbawar waaw ñu koy ñaanal bu baax moom. mu doon ku baax ci ñun barke Serigne Fall du cadre nooyal. moom xam nga bu baax xam nga. jum de daa mën a bëri. macha allah mën na bëre am na doole. mais moom moom na leer ne ko dama koy daan bu soobee Serigne Touba. moom par la force dama koy daan. kon nag di waaw waaw man moom. bu ma paree ci moom waa parcelle bu ñuy dugg fi nañuy tàggu. waaw man moom yoruma ndam yàlla moo yor ndam dañuy sabablu rek di ñaan yàlla yàlla suturaal ma yàlla may ma ndam. man daal loolu la am lu ma instant bi tey mooy sunu première jàkkaarloo des na ay yeneen wax yu ñu war a wax xam nga. waaw da ngay denc damay denc Boy Zil laay bëreel nag il faut ma denc wa lu tax ngay bëreeg Boy Zil nga ne Boy Zil laa. ah xam booy bëreeg waa Pikine moom. ñoom neex wax neexul wax da ngay wax farfos. kon maa ay waxkat lañ. du cadre wax sax mais ñoom. loolu la bëgg a wax. lool la lool la ay waxkat lañ mais gis nga tey fi làmb toll ñun ñoo jël avance jàmbur comprendre nga kon dañoo war a jaay làmb ji ba ñëpp xam ne jaay nañ làmb ji du cadre lu bëri wax parce que am na foo xam ne bu ñu fa tollee wax du fa am làmb la comprendre bu ñu dajewoon man ak moom feneen te seekuñu làmb dañuy rombante dañuy nuyonte rombante dem wax du am mais làmb làmb la du cadre ay yooyu noonu wala dañoo bëree wax dara ñun bu ñu bëree wax tamit amul benn problème bu ñëwee làmb li ñu war a def ci làmb ji te kenn duñu ñàkkal fayda du yabeel sax mu tax toog ak naan da ngaa bëri wax non du yabeel peut être peut être peut être loolu lu nekk ci xelam la rek lu nekk ci xelam la mais incha allah bu bës baa danañ xam yabeel la wala lan la arbitre bu ne prib ngeen taxaw yéen ñaar di ngeen fas yéene laal déggoo li ma la bu arbitre soufflé bu fu mu fekk fu mu nekk naa ko fekk. moom moom. kon de di nga taxaw xaar. waaw man na loolu laa bëgg bu arbitre sifflee kay moom nañ samp jaaga rek génnee jaas yi ku ne jum de jum de yow seetaan nga samay combat man bu arbitre bu sifflee du ma la arriéral benn paa damay bëre damay xeex déggoo ma ba keroog li ma yàlla di may musul arbitre musul sifflee may su ma suulee samay tànk du ma dellu ginnaaw. samay supporters sax loolu lañ may wax yow booy xeex doo calculer da ngay xam nga affaire yooyu noonu. Hmm. wallaay xam nga koy def MMA di xeex ak chaque jour ay cinq personnes. salle ah. cinq personnes juróomi personnes laay xeexal. cinq minutes cinq minutes. man a ñoom deux gars yi dem Europe ñoo bokkoon salle. xama rek mais làmb moo waxul dëgg rek mais fii du sam place barki Seydina xeebu ma ko nag. du Kesso moom dama ko xeeb moom champion la mais waxuma ak moom ci loolu boo déggee ma naan fii du sama place moom du moom moo tax may wax mais tey jii nii man adversaire yi ma war a jël bañ. moom mu nangu ma jël loolu laa koy sante quoi. gërëm ko daal sant waaw billaay wallaay mille 2017 benn saison ma tegale ci trois victoires 2017. ci benn ngemb ci benn ngemb 2017. macha allah ma tegale ay victoire daan nag ba jili jarul sant. pour mu may sant nii. jarugo ndax bu làmb ji jàllee ay di nañ ma saaga. Hmm. waaw ndax la ma ko nar a def incha allah. damay xeex moom damay bëreeg moom te dama koy daan incha allah. jili ba nga dégg-dégg rek. Hmm. kii du xeex ak man. Hmm. lu leer laa wax waxu mbër lay wax nii rek. da lay du xeex ak man de xam naa fi mu jëm de. non du ma ko ko wax mais fi mu jëm xam naa ko. waaw. te na moytu ma jiitu ko fa nag. xam man fi ma jëm mënoo koo xam fi ma jëm après nga koy comprendre fi ma jëm du lenn lu daan la war la foofu rek laa jëm amul feneen te foofu ñëpp ko xam incha allah dama lay daan. jaajëf ñu ngi leen di jaajëfal bu baax xam naa ni. Eh, am nañ ñeneen daje. dañ leen woote ñu ngi woo waa parcelle un ba di woo sama waa dëkk waa Kajoor. di woo aussi fi sama yaay nekk Gàmbi maa ngi woo waa Gàmbi dañuy sonn ci samay combat xam nga di woo waa Louga waa Maka Barake di woo tamit waa Waalo waa Mbar waa Ronk Ronk 1 Ronk 2 ñoo ñëpp maa leen di woo ñu jàpp ci combat bi xam nga ñun ay xale lañ rek di woowaat nag waa parcelle un ba 26. waa di woo sunu mamper ba xam nga di woo Moussa si Moussa le maire góo fay réaction xam nga ñu jàpp ci man moom soxla wu ma xaalis li ma soxla mooy bee sama supporters yi dem stade parce que dañoo war a mobiliser Gueye original tam ñu ngi koy woo di woo monsieur le maire Jamil Sané ñooñu ñëpp ñooñu ñëpp ñu ngi leen di woo. waaw di woo Abdoul Agne xam nga di wax daal ñëpp na añ ci jàpp di woo waa parcelle unité 7 koñ bi ma juddoo yoroo fa màggee fa defee fa lépp maa leen di woo di sant nag encore grand Mor Diouf xam nga di sant waa écurie jàmbaar ñëpp sunu coach yi ñoom Lato Suka Papa Sow sunu patron ñoom Modou Lo gaa yëpp ñu ngi leen di woo ci bis bi waaw. waa waaw dañuy sant ñëpp ah. waaw di ko bëggee waat moom. di woo waa Pikine yëpp di woo deux cent pour cent bi. waaw su ma limee damay juum paa yeeg ñëpp maa ngi leen di woo comprendre nga di woo sama waa koñ waa marché Zang maa ngi leen di woo waa Sandika di woo waa Lambaay mbal mi maa ngi leen di sant bu baax waa Waalo waa Sénégal ñëpp maa ngi leen di woo. comprendre nga di woo waa waa Mar Mar Faabo maa ngi woo bu baax ci combat bi di woo ñëpp ñi nga xam ne ni bu Zul amee combat lañ ciy sonn maa ngi leen di woo monsieur le maire Amadou Isaaxa Diop monsieur le maire ah, maa ngi leen siyaar bu baax di leen woo ci combat bi ngeen ñëw jàpp ci Mbagay Seck adjoint maire Timbo maa ngi lay woo ci combat bi di woo waa marché 5 yëpp encore waa Pikine combat bi seen combat la allah waaw di encouragé soq nag bu baax a baax di ko wax nii la waaw maa ngi woo ñëpp ñu si war a jàpp daal. aha yàlla bu jël euh, hmm. booy ko jumte. Hmm. bi noo def ba taxawal ko. ak ñaari xale yi loo gis ci ñoom ba tëgg waaw combat bi dañuy ñëwaat rek. Hmm. histoire ba tey. Hmm. Pikine Parcelles. Hmm. ndax jum de jàmbaar la nekk. kii nekk écurie Falaye Balde. kii Ama koy indi. kii Modou Lo koy indi kii Ama ñoom Boy Niang ñoom kii. Ama Balde Boy Niang Eumeu Sène. Ah, te mu ngi ni stade baa ngi kon mun nañu wax ne Sokh ak Franc fi taxawaat rek wala Modou Lo ak Ama mm. te dañ jëm ci vers la quatorze août. Mm. muy combat boo xam ne amateur yëpp doo koy xaar diggante Gora Sock ak Fils de Balla. Mm. kéwél war ci bareek Jokal. ñu jël combat bi dugal ko ci ak combat yeneen yi ci topp. combat bi nag ñu dañ nekk ak staff boo xam ne di liggéey ak ñoom wax dëgg yàlla. tey kenn ku ci nekk da ngay dem indi sa idée sa xalaat teg ñu ànd. waaw mu nekk combat boo xam ne ñoom waroon nañu bëre ci beneen combat sax yàlla def yàlla mi dara tawul def combat bu mujjul sotti bii nag ñu ñëw dox ko mu so yomb lool ci benn fan parce que laa dox combat bi hmm. démb laa ko dox mu sotti kii bi démb démb kii bi ñu waxee appel waxu ñaari baat hmm. jum de tamit ka saalika noonu mooy mu ñaari ñoo xam ne dañ bëggante su mbër yëpp meloon ni ñoom rek làmb du bëri jafe-jafe ñu war a bëri nañ bëri waaw ñu war a jëflante nañ jëflante moytuwante bi dafa bari ci làmb ñoom ñu ay naataangoor lañ ñoo mën a mayante xaalis waaw di wax ne ay champion lañ ñu woo seen supporter ñaax leen rek ñu bëree ko ci jàmm kële meer gañ soq da nga da nga tëgg combat bu mel ni euh, booy kii Fils de Balla ak góor Sock combat yi combat yi ñu ci bootal yëpp Jamaïcain xanaa combat bu ci nekk mun nga ko def grand combat mais combat yi ñu ci bootal yëpp ban combat moo ci nekk combat spécial. waaw comme yàlla dafa def la quatorze jours parce que bokk na ci journée yi tëj saison bi. Hmm. waaw dañu war a def fête. ndax bi yàlla defee ren ñu jëm si suñu cinquième journée. le vingt et un novembre le vingt cinq décembre le huit janvier la vingt mars ñu jëm si suñu cinquième journée war ko tëjee suñu saison. Hmm. ah wax dëgg yàlla ku yokkul yaa wàññi dañu war a yokk war a gën a yokk niveau bi yokk doole bi yokk combat hmm. moo tax tey ñu taxawal combat yëpp. Hmm. man nag ñeenti derbi laa boole parcelle way hmm. Pikine parcelle ndax Ngor Sock bu jógee <laughs> yaa ngi dégg. waaw parcelle parcelle jóg fils de Balla mooy lan naa Balla Gaye 2 te Balla Gaye 2 koy indi. waaw boo ci boolewaatee Pikine nag parcelle mooy man ay derbi yu kii laa boole. da ay combat derbi yëpp. waaw tax mais est-ce que li xew arène nationale bii passé ba promoteur yu bare bare bare bëgg a sóobuwaat ci géewu làmb jamay Jamaïcain mën na ko def. non dañuy raxas bi passé ñoo ko def jàmbaar production. waaw jàmbaar mooy Jamaïcain sunu frère di ko félicité. Hmm. di ko ñaanal jàmm xewal sutura bu baax a baax baax yàlla defal ko jàmm. yàlla defal ko cat ba lépp lu mu mébét ci làmb ak sénès bi. Hmm. yàlla defal ko ci lu kawe njortam ndax dimanche bi passé ñoo fi jógee bii la 14 jours dañuy raxas. dañuy raxas dañuy confirmer. waaw xam nga nit da ngay def dara ñu yaakaar ne da nga ko tànn rek. Hmm. waaw bii nag mooy confirmation bi incha allahu rabbi